يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد mbokk jullit ñi ginnaaw bi ñu sante suñu boroom subhaanahu wa taala ñoo ngi julli di salman ci ar rasul muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dénk suñu bopp da leen dénk ñu ragal yàlla subhaanahu wa taala waaye dëgg-dëgg ragal goo xam ne bu ñuy faatu day fekk ñu jébbalu suñu borom subhaanahu wa taala suñu xutba tey mbokk yi dafay tënku ci makaanatu shabaab fi lislaam mooy palaasu jeunes yi palaasu ndaw ci lislaam suñu borom tabaraka wa dafay wax ci alquran mu ni seen borom yàlla day mooy ki nga xam ne moo leen bind ci ngeen nekk ay nit ñoo xam ne da ngeen faible da lompoñ ginnaaw faible bu faible boobu bu def ci yéen kàttan ginnaaw kàttan boobu dangeen di delluwaat faible ak bijjaaw yàlla ne moom mooy bind li ko neex te moom mooy gi xam mooy ki nga xam ne mbir mu nekk moo koy nattale ba teg ko fi mu ko war a teg ñu xam ne ndaw mbokku jullit ñi dafa nekk kàttan bu nekk ci diggante ñaari néew doole mooy néew néew doole ndaw bi ak néew doole màgget bi kon ndaw ci diggante boobu la nekk ndax bi ngay nekk xale mënaloo sa bopp dara ku néew kàttan nga bis boo demee ba nekk mag itam da ngay delluwaat ci néew kàttan bi nga xam ne moom la la yàlla tabaraka wa taala bindee woon moo tax arab yi dañoo xamoon valeur bi ndaw am dañoo xamoon importance bi ndaw am ci société moo tax kenn ci ñoom doon woy wa naan aka neexoon tey sama ndaw bi dellu ci benn bis rek ma xamal ko li nga xamante ni moom la biir jaww bi def ci man bi maanaam aka neexoon jamonoy ndaw dellu si waat ba ma mën a nekk ci samay activité ba ma mën a nekk ci jaamu suma borom subhanahu wa taala mbokk jullit ñi ñu xam ne ndaw benn tolluwaay la boo xam ne tolluwaay bu am valeur la waaye tolluwaay bu am place la ci dundu doomu aadama <clears throat> mooy li nga xam ne mooy li gën a baax ci dundu doomu aadama bi <clears throat> ñu xam ne ba tey itam ndaw ñoom ñooy li nga xam ne ñooy dooni góor yi ëllëg yi bi maanaa ñoom ñooy dooni ñi yor société bi ëllëg waaye itam ëllëg ñoom ñooy doon ay responsabilité doon ay père de famille kon loolu moo tax dafay war ci ndaw yooyu ñu yar leen ngir ñu mën a nekk ñoo xamante ni ñoom itam ëllëg bu ñu demee ba yor réew mën a yar seeni maas moo tax ndaw su baaxee ci ab société rek société boobu dafay dal di baax ndaw su baaxee ci ab xeet xeet boobu dañuy baax waaye xeet wu la gën a boole ay ndaw xamal ne société boobu du nekk société boo xamante ni société bu baax moo tax lislaam ci boppam dafa yittewoo ndaw suñu boroom tabaraka wa taala jox nañu ay exemple ci ay ndaw ci alquran yenent bi sallallahu alayhi wa alihi jox nañu ay exemple ci ndaw itam ci sunna ngir lan ngir leeral importance ak ngëneel bi nekk ci marxala boobu muy étape bi nga xamante ni ndaw am na ko ak importance bi nga xamante ni am na ko suñu borom tabaraka wa jox nañu exemple ci yenent yi amul benn yenent bu yàlla di yónni lu dul la ci sag ndaw la la yónni ki nga xamante ni mooy abul anbiya muy suñu baay ibrahim alayhi salaatu wassalaam suñu borom jox nañu ci moom exemple ne qad kaanat lakum uswatun xasana fi ibrahim walladina maahu nekk na ci yéen royukaay bu rafet ci ibrahim ak ndaw ya nga xamante ni ñoom ñoo ko toppoon mooy lan mooy ay royukaay lañ ci gëm yàlla ay royukaay lañ ci muñ moo tax abdullah ibnu abbas radiallahu anhuma da doon wax naa ni maa baata allahu nabiyan illa shabba nee na yàlla yónniwul benn yenent lu dul ne yenent boobu ab zën la waaye itam amul benn boroom xam-xam bu yàlla di jox xam-xam lu dul leen ndaw la kon yàlla buy tànn di yoon ay yenent ci ndaw ñi la koy jagleel buy tànn ay boroomi xam-xam itam ci jeunes yi la koy tànn bokk na ci nettali yi ñu alquran nettali ci histoire ndaw ñi mooy istiwaar boo xamante ni mooy istiwaaru Ibrahim alayhi salaatu wassalaam suñu boroom nettali ñu la mu waxoon waa xeetam bi nga xamante ni woo ko ci jaamu xërëm mu bañ menacé seen yàlla yi bi ñu ñëwee fekk ñu toj seen yàlla yi bàyyi fa benn bi ñuy bi ñu naan man faala hada bi alihatina kan moo def lii suñu yàlla yi lan lañ tontu qaalu samina fatan yadkuruhum yuqaalu lahu ibrahim ñu ne ñun day dégg nañ benn jeune doon ayibal suñu yàlla yi di ko menacé kon xam naa soo moytuwul moo def lii waaye bu ñu delloo itam dinañ gis xissa yi yeneen yàlla yuusufa alayhi salaatu wassalaam mooy xissa boo xamante ni suñu borom da koo jagleel saar ba mu bi ba fin bi yépp sa yeneen yàlla Yuusuf alayhi salaatu wa salaam la ciy nettali mu nekk xissa boo xamante ni dañ ciy waaroo di ci jëlee ay njariñ nekk royuwaay ci ndaw ñi waaye itam ndaw ñi mën nañ cee roye li nga xamante ni moom mooy fegu mën nañ cee roye laab sellal sa bopp sàkku sa ngërmaande borom subhaanahu wa taala ànd ak coono yi nga xam ne yeneen yàlla Yuusufa alayhi salaatu wa salaam dund na ko ci doomi baayam ya teqale ko baayam sànni ko ci teen ba lu mat fanweeri ak gisantewut ak baayam demati kër buur soxnay buur di ko sàkk ba pare tuumaal ko ñu tëjati ko ñu tëje ko kaso yooyu nekk ay jafe-jafe yoo xamante nii moo tax suñu borom tabaraka wa taala li mu koy wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ne ko inna na naqussu alayka ahsana al qasas dinañ la nettali nettali bi nga xam ne moo gën a rafet moo gën a jaar yoon nettali boobu xissa yenent yàlla yuusuf soo koy jàng dafa lay jox exemple yow ndaw bi nga mën a xam fi ngay teg sa tànk ci li nga xamante ne moom mooy ci diine kadalika itam boo delloo ci suuratul kahfi xissa asxaabul kahfi suñu borom ne innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnaahum huda ay ndaw lañ yoo xamante nii dañoo gëm seen borom suñu borom tabaraka wa taala doon leen li nga xamante ni moom mooy njub ay ndaw yoo xam ne dañoo teral diine woote jëmee ci diine dimbale ko yàlla subhanahu wa taala sori ñooñu caaxaan parce que seen waa dëkk xërëm lañ doon jaam ñoom ñu gis ne lii kat dëppoowut ak fitra bi yàlla bindee doomu aadama bi ñu génn dëkk bi daal dem ci montagne yi ci benn xuntu fa nekk ba xissa ba suñu borom tabaraka wa ni mu ko nettalee ci alquran yonent bi sallallahu alayhi wa mbokk yi moom itam dafa yittewoo woon ndaw lool ci wàllu boobu daf doon jox ndaw ñi ay orientation ngir lan parce que xam na ne euh, message u l'islam ñi ko mën a yeggale fi muy fi mu war a yegg moom mooy ndaw ñi moo tax da leen doon jox ay orientation di leen jagleel ay mbir ngir defar ndaw ñi ci xadiis abi hurayra radiallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na am na juróom-ñaari nit ñoo xamante ni bu yowmal xiyaame bu jant bi tàngee ba tiimi yuur yi yuur yi di bax doomu aadama yi ñaq lool kenn ku ci nekk ak fi la sa ñaq di toll ñii ci wóom ñii ci yel ñii ci pooj ñii ci biir ñii ci dënn ñii dem ba seen ñaq sax doon géej faf labal leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na su boobaa dina am juróom-ñaar ñoo xam ne yàlla da leen di sepp ci mbooloo mi keral leen ci suuf arash ñoom tàngoor woowu bu ñu ko juróom-ñaar yooyu bokk na ci shaabun nasaa fi ibadatillah aw shaabun nasaa fi taatillah mooy ndaw loo xam ne dafa sosu ci topp yàlla subhanahu wa taala bi mu xàmmee la commencé di topp yàlla di jaamu yàlla subhanahu wa taala waaye tam bokk na ci njàngalu njàngal njàngale teggin sharia yenent bi alayhi salaatu wasalaam am na benn xale bu mu toogaloon di lekk ñu koy wax Omar ibnu Abi Salama bi muy lekk ak yenent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw rek dugal loxoom ci bool bi commencé fu ne loxo bi dem ko ci biir ndox ndab yenent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko yaa gulaam sammillaaha yow gone gi waxal bismillah waaye wa bi bi yaminik sooy lekk lekkal sa loxo ndeyjoor waaye wa kul la yalik sooy lekk lekkal li nekk ci sa ron ngir lan ngir yar ko ngir xam ne ndaw loolu dafay doon mag ëllëg wala jiite société bi te su amul yar rek dafay nekk koo xamante ni société bi mën naa yàqoo ci moom noonu itam la jàngale woon Abdullah ibnu Abbas ci ba mu koy jàngal ne ko yaa gulaamu inni uallimaka kalimatin dinaa la jàngal ay baat na góor góorgóorlu ba na wattu yàlla subhaanahu wa taala wattu ay ndigalam waaye moytu li nga xamante ni moom mooy ay teram soo wattoo yàlla subhaanahu wa taala di nga fekk yàlla ci sa kanam mooy bépp jafe-jafe boo mënti am suñu borom tabaraka wa taala dina la ci génn moo tax booy xool message message su ñi ko yenn woon ci jamono yeneen bi alayhi salaatu wasalaam ñi ci ëpp wax wala man ngaa wax ne ñëpp sax ay ndaw lañ boo xoolee abu bakari abu bakari siddiq bi muy dugg ci ci lislaam booba paasewul trent sept ans wala trente trente huit ans fanweeri at ak juróom-ñaar fanweeri at ak juróom-ñett kadaalika Omar Xataab paasewul woon ñaar fukki at ak juróom-ñaar kadaalika Ousmane ibn Affan paasewul woon 34 ans Ali ibn Abi Talib paasewul woon 10 moom bokk na ci ndaw yi teel ñëw fekk si yenente bi alayhi salaatu wasalaam ak mbooloo saxaaba yu bari yoo xamante ni tey boo doon jàng seen dund da ngay gis ne ay ndaw lañu woon waaye ndaw yooyu ñu doonoon ay ndaw terewul woon leen ñu xam seen responsabilité ci société bi moo tax dina am ay yenn ci ay tomb yoo xamante ni dinañ ko mën a euh, jàngee ci dund saxaaba yooyu ci ndaw yooyu ni ñu yittewoo woon seen diine ndaw yooyu ñu ñëw yittewoo woon li nga xamante ni moom mooy seen société xoolal ku mel ni Malik ibn Xuwayri Malik ibn Xuwayri daf koo jaral mu ànd ak ay moroomam ñu jógee ko seen dëkk ñëw Madina ci Yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaar fukki fan lañ fa def doon jàng diine biñ jàngee diine bay dem yonent bi alayhi salaatu su ngeen demee ci askan bu ngeen demee bu waxtu julli jotee na ngeen noddu waaye nangeen ngeen taxawal julli na ngeen jàngal seen waa dëkk waaye teg ci ne leen sallu kama raaytumuni usalli su ngeen di julli na ngeen jullee comme ni ngeen ma gisee may julli moo tax loolu jàngat nga ci wala def yow jullit vingt jours lañ am ci yeneen bi alayhi salaatu wasalaam di ñibbi yeneen bi ne leen su ngeen demee na ngeen jàngal seen waa dëkk kon loolu da lay wan ne ay ndaw lañ woon yoo xamante ni seen diine da leen a yittee loolu waaye nag tey ndaw yi desal nañ xam-xam ginnaaw bàyyi nañ xam-xam ginnaaw sàkkootuñ xam-xam gëstootuñ xam-xam loolu moo tax échec bi nga gis ci suñu société nga mën koo gis kadalika anas ibnu malik nee na amoon na juróom-ñaar fukki ndaw yu nekkoon ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñooñu lañ leen lañ doon tuddee alqurra mooy ñi nga xam ne ñoo daaxoon a jàng alquran ci madina juróom-ñaar fukki jeunes yoo xamante ni bu ñu xëyee dañuy yëw ci jàkka ji su ngoon jotee ñu dem ci fenn laqatu ci fenn ci madina di jàngalante ci seen biir seen diina su ko defee waa jàkka ji jàpp ne ñoo nga seen kër waa seen kër itam jàpp ne ñoo nga ci jàkk ja te fekk ñoo ngi làqatu ci fenn ci Medina di jàngalante li nga xamante ni moom mooy seen diine boo jëlee ku mel ne Omar ibn Khattab ni mu daan def ak benn dëkkandoom Omar bu xëyee dem ci tool yi dëkkandoo bi day dem ci Yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngi bu guddi jotee bu Omar wàccee dëkkandoo bi ñëw jàngal ko li mu jëlee ci Yonent bi alayhi salaatu wasalaam tey bu subaa dëkkandoo bi dem tool Omar dem jàngi ji su dëkkandoo bi wàccee mu ñëw Omar jàngal ko li mu jëlee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon ñoom ndaw yooyu noonu lañ yittewoo woon li nga xamante ni moom mooy moom mooy seen diine moo tax juróom-ñaar fukki xurraa yooyu muy jàngkat alquran yooyu keroog bañ leen reyee dafa métti ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba ba fukki fan ak juróom suy julli suba dafay xunóot di ñaanal yàlla ñooñee nga xamante ni dañoo rey ñooñu. dañoo rey juróom-ñaar fukki xuraa yooyu parce que xam na ne ay ndaw lañ yoo xamante ni amoon nañ benn place bu ñu taxaw ci société bi xoolal ku mel ni Usaama Usaama ibnu Zayd radiyallahu anhu moom itam bokkoon ci ndaw saxaaba yi bi nga xamante ni xaadisatul ifki am na mooy naafeq bu bon boobu bi mu tuumaalee sunu yaay Aïcha radiyallahu anha Usaama li muy doon ndaw ndaw ndaw ndaw yonent bi dafa ñëw di diisoo ak moom di ko laaj xalaatam waaye keroog ba nga xamante ni ñoo ngi war a dem fa nga xamante ni mooy euh, bi yonent bi di faatu takk ab armée daal di koy jox Usaama te boobu Abubakar ak Umar ak Usmaan ak waaye dafa tànn Usaama moo tax bi yonent bi faatoo lenn ci saxaaba yi wax Abubakar na wàccee Usaama parce que ndaw la mu ne leen déedéet armée boo xam ne. yenent bi moo ko teg ci bopp bi jiital Usaama kooku du ma ko wàcce noonu lañu demee xeex ca xeexu Yamaama ba yàlla tabaraka wa taala defal leen ngañaay kazalika Mus'ab ibn Umayr mooy jeune bi nga xam ne moo njëkk jóge ko koo Màkka yenent bi yemal ko mu dem Madina ba lu waa avant yenent bi di ñëw Madina ñi ëpp ci waa Madina tuub nañ ci loxoom bu leen di jàngal alquran di leen di jàngal sunna kooku mooy Mus'ab ibn Umayr ak yeneen ndaw yoo xamante ni saxaaba yi buñ ko doon lim du fi xaj ci benn xutba mbokk jullit ñi nañu xam ne ndaw ci lislaam moom mooy yiw waaye itam ndaw luy sàkkoo tedd nga ci leneen lu lislaam xamal ne ci toroxtaange nga jëm tedd nga ndaw ci lislaam rek la ko mën a amee moo tax war na ci ndaw li mu xam ne xeet bii mu bokk muy xeetu yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mooy xeet wi gën ci xeet yu mos a yàlla mos a génnee ci nit ñi waaye gën googu dafay sax fekk ndaw loolu moo ngi jàpp ci diine kon xeet lañu woo xam ne yàlla moo ñu teral saa yu ñu sàkkoo ak tedd ci leneen lu dul lislaam rek nañu xam ne ci toroxtaange lañu jëm waaye mbokk jullit ñi ndaw li war naa xam ne yitteem mooy ginnaaw bi mu baaxalee boppam mu fexe ba waa société bi itam ñeneen baaxee ci moom waaye mu fexe ba ñeneen di jaamoo yàlla ci moom mooy muy jàngale di yeete wale na wattoo doon ndaw loo xamante nii dafay woote jëmee ci lu bon su ko defee mu yore bàkkaaram yore bàkkaar yi ko wuy ci loolu ndaw li war naa nekk ndaw loo xamante ni dafay góorgóorlu ba di woote ci lu baax di tere loo xamante ni lu bon waaye ndaw li war naa xam ba tey itam li nga xam ne moo ko war ci biir dëkkam ci ay xaq na xam ne ci dëkku lislaam la nekk ci suufus lislaam la juddoo ñi nga xamante ni ñoom ñooy njiital réew yi dañoo am ci ñoom ay xaq mooy dañ leen a war a topp ci loo xamante ni yàlla tabaraka wa taala ko digle waaye nañu moytandiku ndaw ñi nañu ko nekk jumtubaat jumtukaay yoo xamante ni ci ñoom la noonu lislaam yi di jaar di yàq seeni dëkk te loolu booy xool tey dinga ko gis ci suñu réew mi booy xool tey télévision yi di xool internet bi ndaw yi ngi ciy gis da ngay yéemu ci yàlla Sénégal fan la jëm tey xoolal plateau télévision yi ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yi ñu war leen a dalal duñu leen dalal ay nit ñu tekkiwul dara. ñoo xamante ni mënuñ laa wax lan la liggéey yor xaalis bu jeex ñoom ngay gis ñu leen di dalal ci plateau télévision yi su ko defee ndaw ñi jàpp ne ñii ñooy exemple jàpp ne diw mi alal ji mu am dama ko war a am ba dem na ci tey ndaw yu bari ci suñu réew dugg nañ ci li nga xamante ni moom mooy góor jigéen am ay financement yu nekk ci seen ginnaaw bu yàggul rek dégg ngeen Grand Mosquée de Dakar bett nañ fa ñaari góor jigéen ñuy sëy laa la hawla wala quwwata illa billah fan la ñu su ñu demee ba góor jigéen ñi am fit di dugg ci biir jàkka néegu yàlla di fa def seen lu bon loolu nga xam ne ñu mag ñu nekk ci réew mi ñoo nekk ci seen ginnaaw kon loolu nañ ci bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax ndaw war ko doon koo xamante ni ci ñoom la yàqkat yi di jaar te tey dafa bari ci sunu réew mi ndaw ñoo xamante ni ñoo ngi ci góor jigéen ñi ñii ñoo ci franc bi yooyu dafa bari ci si biir réew bi te ay financement yu mag ñoo nekk ci seen ginnaaw ay financement yu mag ñoo nekk ci seen ginnaaw ndax bu fekkoonte ni ay nit ñu am doole nekkuñ ci seen ginnaaw ñu xalaata dem ci néegu yàlla dafa def seen mbonte googu kon loolu ndaw ñi nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax télévision yi am nañ ci responsabilité xoolal kuréel gi ñu dénk mu caytu lépp lu jëm ci wàllu euh, lu jëm ci wàllu liy jaar ci télé yi ñoom itam am nañ ci part de responsabilité muy CNRA CNRA kenn def leen a déggatul ci dara kenn déggatu leen télévision yi li fi dara baaxu ci série théâtre yeeg yépp a yem benn baaxu ci jigéen ñu futteeku ba seen awra nekk ci biti rek nga ciy gis jigéen ñi futteeku def yaramu neen ñoom la jël di teg ci palaato yi tey boo demee ci bërëbu jaayukaay dem nañ ba nga xam ne jigéen ñi la ñuy commercer dañu jël jigéen ñi teg leen ci place yi parce que xam nañ ne jigéen ñi bu ñu fa nekkee ci la góor ñi di gën a mën a dugg ñëw jënd publicité yi jigéen ñi di publicité di def yaramu neen ñu leen di taf ci panneau publicitaire yi boo génnee ci mbedd yi gis leen seen yaram ne fang fàngaaral ci biti fan lañ jëm fan lañ jëm moo tax ndaw dafa war a góorgóorlu war ta nekk boo xamante ni dañuy jaar ci moom di yàq li nga xamante ni moom mooy société am waaye itam war na ci ndaw li mu nekk koo xamante ni daa'iman dafay taqoo ak boroomam subhaanahu wa taala ci fonk li nga xamante ni moom mooy joxe julli ci waxtu yi bari lu muy tudd yàlla subhaanahu wa taala bari lu muy dimbale koo yàlla ci mboole ni mbiram di sukkandiku ci yàlla subhaanahu wa taala waaye mu sàmm ak ñaan yi nga xam ne moom la yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama jàngal war na ci ndaw li mu wattu di roy roy gumba roy gumba mooy topp nit ki lum wax bu nee waaw nga ne waaw bu nee déet nga ne déet su nee tooy na nga ne xepp bu nee wow na nga ne koŋ loolu moom la tuddee taqlidul amal toppin woo xamante ni tegoo ko ci diina doomu aadama ak koo mën ci doon ki ngay topp na la wan yàlla wan la yonent bi alayhi salaatu wasalaam mais di toppe toppe goo xamante ni suñ la laajee yow kii lan nga ko toppee mënoo indi ay preuve yoo wane ci ni ko toppee déedéet loolu bi ak toppe nit ki dañ koy topp ci ni mu toppee yàlla ak yenente bi alayhi salaatu wasalaam nit ki dañ koy topp ci ni mu jàngalee diine ci ni mu wanee diine ci loolu lañ koy toppee waaye kenn du topp ci diw moom moo neex wala yeneen yoo xamante ni yu wuteeg diine la moo tax ndaw li moom itam war naa moytandiku di roy ñi nga xamante ni duñu ay jullit tey booy xool suñuy ndawi société amatuñu royukaay amatuñu royukaay ñi nekk bitim réew lañuy ñuy roy ci tey moo xam ci wàllu solin la moo xam ci wàllu waxin la moo xam ci wàllu jëfin la ba dem na ci sax tey nuyoo bu jekk bu baax muy asalaamualeykum sax xamatuñ ko nuyoo bu baax bu jekk tey tey xamatuñ ko booy sawaa na ngeen def gaayan naka waar yooyu ngay dégg yooyu ngay dégg te lislaam jàngal la boo dajee sa mbokk jullit nga ne ko assalaamu aleykum wa rahmatullah jàmmi yàlla ak yërmande yàlla yàlla nekk ci yow yàlla moo ñu ko wax nuyoo la boo xamante ni taxiyatan mubaraka nuyoo la bu teey bu barke waaye ci kan la jógee mu ne min indillah yàlla ñu ko jagleel kon nañu nañuy delloo ci kàddu yi lislaam yi bañ di roy yéeféer yi nañu roy li nga xamante ni moom lañu ñu lislaam jàngal bañ di roy li nga xamante ni moom mooy yéeféer yi yeneen ci bi alayhi salaatu wasalaam nee na man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum képp ku niru nirulu aw nit roy aw nit nee na ci ñoom nga bokk kon nañuy xoolaat suñuy kàddu ñu ndaw ñi nañu xoolaat suñu soli ñu ndaw ñi nañu xoolaat suñuy doxalin ñu ndaw ñi nañu xoolaat suñu suñuy royukaay te royukaay yooyu nag ñoo ngi ko mën a jëlee ci diine jàng lan moo ndaw yenent bi alayhi salaatu wasalaam yaroon nan lañ doon dundee ci keppaaru lislaam ba tasaare lislaam fi mu yegg tey waaye war na ci ndaw la itam mu wattu mu sàmm li nga xamante ni moom mooy ak ngóoraam nekk ndaw loo xamante ni day góore dëgër ba a nekk ndaw loo xamante ni góor nga waaye ku la gis du la xàmmee ak jigéen wala nekk jigéen joo xamante ni jigéen nga ku la gis du la xàmme ak góor te loolu tey moo tasaaroo ci société dangay dox dajeeg góor doo xàmmee góor la wala jigéen da ngay dox dajeeg jigéen doo xàmmee ndax kii jigéen la wala góor la ci lan ci wàllu comportement ci ci lan ci wàllu colin ci lan ci wàllu doxalin loolu ndaw ñi nañ ko wattu bu baax a baax a baax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa yàlla rëbb na góor ñi nga xam ne dañuy niru nirulu ay jigéen waaye itam yàlla rëbb na jigéen ñi nga xamante ni dañuy niru nirulu li nga xamante ni moom mooy ay góor kon góor dafa war a yor melokaanu góor ci waxinam ak ci doxinam ak ci jëfinam ak ci colinam kazaalika itam jigéen dafa war a yor melokaanu jigéen si waxinam ak ci doxinam ak ci colinam waaye war na ci ndaw li ba tey itam jot temps bi ko yàlla may mu feesal ko ak loo xamante ni lu koy jariñ la feesal ko ci lu am njariñ mu moytandiku lu xaraam ndaw ñi nañu moytandiku lu xaraam nañu fàggu alal waaye nañu ko fàggoo ci anam boo xamante ni anam bu dagan la da ngay dégg tey ñu ne alal dañ koy lijjanti kenn du ko liggéey loolu mbokk jullit ñi la dañ ci suñu cerveau yi alal dañ koy liggéey waaye alal ñu ko liggéey dañ koy lijjant ngay dégg ay dóor martoog yu kenn xamut yooyu nañ ko moytu àdduna bi dafay jeex lépp loo fi am wallahi bis dina ñëw nga tëdd alal ji wër la te du tax nga mën a jug daraja yi wër la du tax nga mën a jug ndombay tànk yi wër la te du tax nga mën a jug yàlla ne na su boobaa wa wanna annahu lfiraq su boobaa ñëpp dinañu wër wooy docteur yi wooy ñëpp ñu ñëw waaye moom mi tëdd wa na annahu alfiraq leer na ko ne tey ji dafay dee su boobaa nag bu fekkante ni alal ji jëlee woo ko woon ci fu neex yàlla subhanahu wa taala su boobaa di nga réccu kon ñun ndaw ñi dañu xoolaat ni ñuy fàggoo alal alal ju lew dafay barke ak lu mu tuuti tuuti nag yàlla da ciy def barke mais alal ju lewul ak lu mu bari bari man ngaa génn fii léegi li jënd benn cinq cent mille ci lu lewul balaa jant bi di soo doo xam fu fu mu dugg waaye mën nga génn fii lijjanti benn dix mille francs bu lew yàlla def ci barke moo tax kon nañu gën a góorgóorluwaat ndaw ñi ci fàggu li nga xamante ni moom mooy alal ju dagan bañ a fàggu li nga xamante ni moom mooy lu xaram kon yàlla ñu yàlla tabaraka wa sàmmal suñuy ndaw te aaral ñu suñuy ndaw delloowaat suñuy ndaw ci li nga xamante ni moom mooy lislaam delloowaat suñuy ndaw ci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 اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قوموا إلى الصلاة يرحمكم